jërë ngeen jëf mbokki Actubuzz TV ngeen jëf mbokki àdduna yaakaar naa comme ni ñu koy daal defee kii nag bu ngeen ko gisee moom mooy 5 tonnes yaakaar naa kenn dootu ko présenté et que heure bu ngeen ko gisee suñu écran yi ngeen xam ni njëriñ la ñuy waxtaanee ngeen xam ni làmb la ñuy waxtaanee ngeen xam ni actualité la ñuy waxtaanee waaye nag tey nag dañ ko invité spécial euh, gannaaw bi nga xamante ni comme combat wu Balla Gaye ak Tapha Tine war a ñëw incha allahu rabi dimanche mu génnoon wax wax ju solo. gars yi naan cinq lal la cinq lal la tey mu ñëwaat génnaat ñu na waxtaan si lu am solo mais balaa tuuti ñu bàyyi ko bu nuyoo tey moom spécial Balla Gaye Tapha la parce que cinq tey la mu nar a wax yaakaar naa ne dina dina dina garaaw cinq wax ginnaaw bi sant yàlla julli si di présenté woo loolu bëggee Dof yëpp di bëggee àdduna di bëggee Géejawaay di baalu àq ñëpp si tam xarit gi ñu jub xam di wax tamit di si sàkkuwaat ñaan bu baax a baax xam di ñaanal xama waaye dawli yeeg ñëpp te tamit sénégalais xam ne xama tam xarit du bisu noos quoi nañ ko bàyyi xel bu baax gis naa jeunesse bi xama ñëpp dañu waajal tam xarit xama pour taaja boon affaire yooyu noonu comprendre te tam xarit bañ koy wax xama waaw ci lañ rayoon presque njabootu yonent yàlla Muhammad gépp xama kon war nañoo xamaat loolu bu baax a baax suuru tam xarit li ko waral ci lañ ray Assane lan demet tam xarit mooy yomal xosora ci lañ ray Ousseynou xamaraana kon loolu du bisu noos pour man du bisu ñu bàyyi xel loolu xama te it maa ngi fàttali bi ñu nekkee dañ daa bind ay ay xul na am wa antum mu ngi nekkoon ci wama ansal naa di wër di ko jaay mu nekk ñett yu juróom xam ne boo dank cere nga njëkk a da nga koy booleeg moom dank ko ko te du laal sa sa bëñ da ngay fekkee déwén quoi comprendre yooyu it faaw ñu mën ko indiwaat daal bëgg naa ñu indiwaat ko bu baax a baax xama mais léegi nag xama tamxarit gars yi dañ koy nekk di noos xama di solu di tëgg di fecci te xama waaw dañ ko bàyyi xel daal xam ne moom ci lañu rey njabootu yonent bi daal faw ñu bàyyi xel loolu ko waaw def ci ay xul walaaw yu bari xama waaw fas yéene see sellal julli ci bañ cee mooy xam yu bari daal faaw ñu bàyyi ko xam ne bis bu jara fàttali ko borom la daal waaw bis boo xamante ni bis bu doy waar la quoi. jërëjëf yaakaar nga lu am solo euh, comme ni ñu daal wax rek yaakaar naa ni 5 tonnes ak lu mu mënti wax nga xam ko nit ku am xam la nit koo xamante ne boo ko gisee xam ne ab daara moo nekk si moom waaye nag dañ ne dimanche ne Balla Gaye ne Tapha coow li bari nga génn di wax wax waxaat waxaat la ma lay njëkk a la vraiment ñoom ñaari ñëpp ko bëgg comprendre mais dix moom le dimanche moom la dimanche quoi le vingt xam nga nekk na combat boo xamante ni xam nga mu ngi noonu daal combat bi doy na trop <laughs> waaw doy trop trop ba nga xam ne xam nga Tapha Tine yi vraiment gis naa ko mu nekk ci état bu doy waar xam nga gis naa ko mu nekk ci làmb ji en cent pour cent xama nga gis naa mu taxaw ci même Balla Gaye tamit gis naa mu fonk combat bi comprendre mais dama si xaw a tiit quoi dama si xaw a tiit. nan nga mooy man man ki ma wax kooku du waxantu ki ma wax man. cinq balaa maa ñëw si koo wax ki la wax da nga ne Tapha Tine gis naa ko si forme Balla Gaye mu ngi préparé loolu ça veut dire. waaw Balla Gaye entraîné na dem na INSEPS xam nga ñëw na mais pour l'instant Tapha Tine moo gën a pare ba Tapha Tine Balla Gaye mënul ëpp Tapha dool si àdduna mënul nekk mënul am comprendre barke alxuraan loolu mënul am walaay la yow gisoo Balla Gaye njaago yu mu def keroog bu ñu ko jëlee. na daan Tapha Tine si bëre mais mënu ko daan si doole loolu mënul am te Tapha Tine la jëm quoi Balla Gaye da ko humilier ci signature ak yeneen ak yeneen daanoon ko xama Tapha Tine a bàyyi xel ma déggee mooy Tapha Tine moo Balla Gaye doole non ma ma ko kaana moroon loolu moom Tapha Tine moo Balla Gaye doole fop waaw puis et dire wala yansim te man sax xam nga combat bi daal li ma la mën a wax mooy sama xel waaw mu ngi noonu daal ki ma wax du waxantu quoi. léegi ñu ñëw si kii la wax ki la wax du waxantu 5 tonnes ki lay wax moo la waxoon waxaat la waxaat la. ki ma wax ki ma wax kooku li tax ma ay wax man sañ naa ko wax si micro wala dara kooku dafa am combat bal euh, ama mudloo ama bale daan na ma mudloo day daan ama bale kooku du nekk si ay errant du sëriñu TikTok mu ñëwaat mudloo di bëreeg booñaa mu ne ma mudloo day daan booñaa. Siteu di bëreeg Lac de Guiers mu expliqué na ma combat bi Lac de dina am victoire mais du ko amee ci ci jëlle Ama Sène di bëreeg Tapha Tine mu ne ma Ama Sène day euh, Tapha Tine day daan Ama Sène contre Sa Thiès mu ne ma Ama Sène day daan Sa Thiès moo tax ma génn sax def interview ma ma gis quoi ma ma ne ma ku kilifa la du waxantu guy gi bi mu jëlee combat mook Arafas di ko préparé ba suur conférence presse mu wax ma jour boobu ñu ànd mu ñu wax ma kooku dana ma sawaa ji dañ koo jekku day day ñàkk làmb ji. guy gi mu ngi seetaan ku ci mel ni tamit boo ma wax bu amul ah man Sénégalais mun nañ ma seese barke alxuraan billaay wallaay. nga lay wax ni kooku du waxantu barke Cheikh Ahmadou Bamba billahi wallahi ku xama tamit elmo kooku su ne moon suba da ngay dee ma dem fa tey ne ko góor gis sama diw nangam mu ne ma day dee barke alxuraan ma xam ne faatu suba billahi wallahi wa taala bu fekkee du ma la fidaawun yàlla ma safara jël addi du ma waxantu léegi mais li ma wax si combat bi doy fa doy waar ba nga xam ne man comprendre mu quoi combat bi. billahi wallahi wa taala ilmo ma xam lay wax ah. combat bi sax est pour man ñoom ñaar am na ku ci am blessure di ko nëbbu quoi. mais nag loolu du nekk lu may wax pour l'instant xëy na suba mun naa si waxaat. <laughs> saa yi cinq wax na de. ah wallaahi ilmo man lu la wax rek takkal waxuma la Balla Gaye moo blessé waxuma la Tapha Tine moom mais dama ne la li ma la wax ni looloo a xam nga nag nit bu waxee wax bu feebare noppi koy diglu dafa war a wér man xam nga tey bugguma tey di commentaire lu négatif wala xool gis nga doomu aadama booy diglu 5 tonnes wala nga xam da ngay xool ko xam 5 tonnes nga la jëti numéro am nga woo ko nga xam kii li mu wax fan la ko te xam nga tamit 5 tonnes di wax booba léegi comprendre man lu ma wax rek preuve laa indi barki alquranu karim elmo barki Seydina Mohamed tafaatin au Balla Gaye am na ko ci blessé di ko nëbb non yow waxantu yow yow yow doo waxantu mën nga kaf nag mais doo waxantu non man du man du ma fen man sama aqulaay taxalaa laay waxee te man kenn du ma saraxee barki Cheikh Ahmadou Bamba man sama àdduna kenn du ma saraxe man géej waay laa dëkk géej waay laa yeew drapeau géej waay laay porté mais soo ma gisee lu résonance mais Elmo ki ma kii wax nii barki mais nag àdduna nag lu ne mën a sensé mënoon na ne diw diw day daanu ndax fii Elmo su Senghor war na mën a dee suba sax ñu ñaan ci yàlla ñu ñu yokkaaw fanam loolu loolu sa loolu àdduna mais moom wax na la si combat euh, diw day diw dafay daanu wax na ma ko kay te wax naa la ko léegi ni ma la ko waxee man dinaa ko waxaat sax bu combat bi ñu subal combat damay génn may la diw day daanu. non man moom bi bi bi bi avant caméra yi tax bi mu waxee ma damaa tiit sax. barki si Ahmadou Bamba <laughs> wallaahi la xam nga kooku du waxantu elmo man dama ko xam li tax ma sañet génn def interview devant public ma ne la combat bi barki alxuraanul karim xam naa kii daanu te barki si Ahmadou Bamba day daanu du ma bett. mais est-ce que am na solution. non am na solution àdduna xam nga tey. àdduna dañ na la deesul sa bopp rek moo mënul nekk mais lépp a mën a nekk xam nga te sarax mun na lu ne gars yi mënuñu dëppar ni tey mën nañu tey diw day dee suba ñu ñaan ci yàlla ñu yokk aw fanam ba nga dee war a dee tey man cinq tonnes war na maa dee tey tey ji leen di guddi gii ñu ñaan ci yàlla ñu fomm ko ba suba ci ci bi loolu mën a nekk mais dama ne la làmb ji yuuxu dina jib fuñ ko foogewul. mais gisoo ni euh, euh, làmb ji combat bi boo xool signature contrat bi Balla Gaye nga gisoo ni dafa taxaw si dara parce que gis nga mu gëdd Tapha ba gars yi naan Tapha Tine dafa mel Tapha Tine a taxaw fe isaan boo bëggee dëgg ñoom ñaari ñëpp a taxaw si dara comprendre li ma la wax ñoom ñaari a taxaw si dara su ma la waxee taxaw dama ne la man si côté doole bi laa ne Tapha Tine moom Balla Gaye doole mais waxuma la ne kii ma wax wax na ma li ma waxuma la mooy la Balla Gaye daan damaa wax na di way daan loolu koy sekkalet anet barke Seydina Mohamed billahi wallahi am na mbër mu blessé barke alquranu karim di ko sooxaale man combat bi sax pour am sax mun na am de mais am na ku ko ku ko sooxaale moom <laughs> mburoo bu nga ko daanee sax xam nga wax naa a déclenché te yaa ngi fi mun na nekk tafaatin sax mun na nekk tafaatin ci boppam sax di nekk Balla Gaye waxuma kenn la nag mais li ma la wax ni barke si Ahmadou Bamba bindal mais tey jii euh, Balla Gaye Tapha Tine yaakaar naa combat la boo xamante ni ñu bëri ñu ngi koy di ko xaar yàggatul dimanche yaa ngi dégg tey jii Balla Gaye tey jii boo boo doon conseillé Balla Gaye pour ci côté tey jii euh, euh, bëre lan nga koy conseillé en waaw su ma doon conseil mooy mu nekk si làmb ja xama tax yow man man man yow kii xam sax lan lan lay conseillé waat <laughs> waaw comprendre wala li ma la wax daal mooy Elmo yàlla na jàmm yàgg xama di wax daal xama mais pour sax yeneen gars yu bari dañuy nekk si kii di laajte sama numéro di ma sonal quoi xama di woo ay nit yu bari di ma laaj seen numéro xam nga. man kay man kay si si si commercial bi sax ñu bëri dañuy laaj ñu. ma sama numéro xam nga mun naa leen ko jox loolu du problème waaw ko soxla 5 tonnes rek da nga koy woo ci 76 xam nga 635 ma sëriñ nag du ma sëriñ de. du ma sëriñu tereex 5 tonnes benn nit la buy exiger ci Sénégal du ma sëriñu tereex du dara na pour na leer mais nag xam naa kër yu baax barke alxuraan waaw ku ma soxla daal na ma woo ci 76 635 10 78 mooy sama numéro man. d' accord euh, bu loolu daal euh, weesoo ci tey jii ñu gis ni des fois da ngay defee mu mel ni euh, des du ab du arrangé ñi parce que mu mel ni tey jii comme ni nga dëkkee géejuwaay dëgg bi nga sañ di génne di ko wax sans autant nga nga man géejuwaay laa dëkk damay tàntal sama mbër lu tax du la moo tax loolu waaw li ma ko may mooy xam nga doomu aadama soo judoo ñu yar la fi la war a yare te sama yaay daf may wax benn wax chaque jour nee sañoo nit di tàntal koo xamante ni lu nekk lu dëgg man man sa personnel man zël contre tous aw ma xaritu mbër ànduma kenn fréquenté wu kenn sama ding sama personnel su ma amee reer su su ma amee fay sama location su ma maa ngi sant yàlla judi si yónente comprendre mais man foofu laay tool sama àdduna gis nga doomu aadama nag bu la doon bu la kenn tëkkul jaamoo kenn da ngay da ngay ouvert man loolu laa gëm quoi te man dëgg rek laay wax ah ku mu arrangé fali laay alhamdu ku ma arrangé wul ça ne intéresse pas sàkku xamante nit déw ma fu ay pour pour ñëw foo di wane sama bopp ba dof-dof lu jotee dof-dof lu comme ñëpp ñu xam ne man dof laa damaa wane ne dof laa ba ñëpp xam ne dof laa mais bi nitee jotee damaa wane ne nit laa ba ñëpp xam ne nit laa man foofu laa toll ah waaw ndax suñu borom tamit sant naa yàlla quoi dimbali ma si lu bari Elmo man dama sant yàlla julli si yonent bi jàng naa alxuraan xama di sant ko ci mel ni Baba Diaw vraiment ma tëddee ci lal bu jël 1 million 500 de la part pour toi pour Baba Diaw barke alxuraanul karim di ko sant bu baax nit ku baax a waxee dëgg dof moom kenn waxatuloo ko parce que des fois gis des nit ay analyse yu yu pertinent yoo xamante ni koy analyser wala nga wax yéen wax yoo xamante nit ñi dañ ciy teg seen bët yaakaar naa nit ñu bëri sax si loolu la lay xaw a régler ne 5 tonnes kan kan barke Serigne Touba bi ma waxee Modou Lo day daan combat mi bu wax ma Eumeu bi wax ma ko ne ma bu génnee nangam ak nangam day Sa day daan dama woo Sa Thiès jour ba ba sonn jotuma lu may wax a njaay day dawal day yor mu ne bi ma dee ba nga xamee daf ko plaisir boobu noonu plaisir liggéey la woon exemple comprendre ma la moo tax bi ma waxee ma ne ma génn ma def interview ma ne Eumeu Sène day daan Sa Thiès kooku du waxantu moo tax combat bii tey tey tey la ma ko wax tey mu ne ma 5 tonnes barke alxuraanu karim diw day daan diw te lii ma la wax barke alxuraanu karim xanaa yàlla àdduna tukki tey tey mooy tax du am mais bu amul day daan te ki ma la wax nii barke Seexul Xadim mooy daan mais nag mën nañu ko sensé. kooku nit ñi xam la wala. kan sëñ bi non du sëriñu TikTok de kooku musul génn TikTok xamul TikTok xamul YouTube xamul fenn xamul sax ay mbër guy gi mii rek bi ma ko boole xamu ko mais dana ma sa mbër koo jéego day man lu ma wax day am preuve saa kese ngi dund guy gee ngi dund ñëpp a ngi dund du ma fenal kenn ça n'intéresse pas man waxuma pour Balla Gaye 2 waxuma pour Tapha Tine waxuma pour Asnia waxuma pour man sama man seul liñ ma wax lu leer kooku bu elma bu su demoon barke Seydina Mohamed billahi wallahi wa taala ku di ak sa bàmmeel barke alquranul karim su demoon suba diw diw day dee bu demoon da ngay dee barke alquranul karim bu fekkee guddi tey du ma la fi genre léegi euh, bu fekkee di yaakaar ne naa ni euh, et que loolu yëpp daal dinay weesu tey ji combat bi nekk suba su nekk euh, dimanche du moins est-ce que tey ji bon du ma ne sax xam naa tey ji benn mbër bu la woowoon tey ji exemple Tapha Tine wala ne yóbbu ma foofu exemple ah mais loolu Tapha Tine woo loolu ah ça ne doo ma ko yóbbu ma noo mais man moom xam nga man yow dëgg rek yow waaw ah, man moom dëgg laay doxee xam nga te man nag en moom wax Bamba man du maîtriser waxuma la damay ànd ak Tapha Tine mu wax la ànd ak Balla Gaye de mais gis nga fi doole man su ma tey exemple elma su ma Tapha Tine mu ma toog tey may dem cinquante mille exemple man pour ku de géej waay defal na ma dara bu tax man man man man man man man xam man du ma ñaanuma kenn dara nag ma kenn maa ngi sant yàlla di jur si di sant sama ñaari waajur waxuma kenn ñëw pour muy ko si fee dama ne li ma la wax loolu moo am daf maa wax am naa droit génn wax xëy na sax fi combat bi taw moo tax suñu ma la wax ne diw la wax ko ci devant public kon ma ko defoon ñoom am ma seen mais barke alxuraan bu ñu suba la combat bi ma génn devant tir ne la diw day daanu te bu ma la xam nga mais tey ji exemple même bu fekkee léegi boo doon ñaanal ndam koy yow koy ñaanal ndam mën a ñaan ndam comme nan waaye yow ki loo mu ji lañ ko ñaanal man dama kii daanu daal saa bu fekkee li ma la wax nii noonu la demee quoi comprendre na. ah maa koy Balla non man man maa ngi fi man man man man man man Balla Gaye 2 géej waay laa yeewoo géej waay laa dëgg comprendre drapeau géej waay laay porté. mais tam yow daal dëgg gi daal ngay wax moom maanaam yow boo naree wax da nga dëgg. waaw man Balla Gaye 2 Tapha ñoom ñëpp ay sénégalais lañ ci dëkk bi lañ dëkk comprendre ma la man hôpitalu Ndaamaatu laa dëkk Touba mooy xolu Bawol Bawol bu dee xolu bool Bawol te man sama début carrière maa ngi ko defee écrit ñoom taf ay écrit bara joon mais déggantumaa ñoom xaw ma si ñoom dara per bara joon yoru ma numéro am lijjanti ma fu fu ma aw aw fa intéressé wu ma aw ma déw barke Cheikh Ahmadou Bamba soxla ma seen dara Balla Gaye mu entraîné musuma dem seen naa numéro am su ma la ko yoru ma numéro am damay fen yor naa numéro am ma la ko yoru ma numéro am ak moom ma Bamba mais mais mais est-ce que doo des fois doo génn genre yii waa kenn si géej waaye di la woo di la wax la moo tax waroo waxee lee tout ça genre yooyu. loolu lay am mais man su ma waxee te ñu dugaloo ma waxaloo ma lu mu war wax après su ma xamee ne wax naa ko damay génn sans sama version rek man su ma xamee dañ ma nar a suruxal waxloo waxloo ma ma wax dara ma wax ko ba pare mag buy naan ndox mu tàng daal sukar saa tax waaw <laughs> ah, mag buy naan ndox mu tàng daal sukar saa tax quoi comprendre mais man moom xam nga génn waxloo ma mën na maa wax. man fi mu toll nii mën nañoo bokk waxtaan nii nga ne ma senkotan man sama dëgg gi ma gëm exemple mën nañoo wax nga wax may la dinaa wax li ma def ko mais damay xëy rek soppeeku de dëgg gi ci laa ñëwaat de barka <laughs> alxuraan <laughs> waaw Ah. waaw. loolu moom wallaahi ko dara dara yor naa numéro am dañuy vagalante mu ne ma sawa champion mbaa ak si jàmm ma ko maa si jàmm ma woo ko jur mu ne ma ab champion euh, gis naa appel bi loolu xam naa ko si moom. mais lu ma la waxaat ci moom ne yëpp moom analysé naa waaw mais lu ma loolu moom damay fen moom waaw ah. léegi bu bu Balla doon def euh, open press en tant que bu dee di nga dem. non ma dem bëgguma la naa la wax dem nit ñëpp naan doon dem man waaye dem. bu la yëkkatee téléphone ba wala. waaw ban yegg ca rek loolu yàlla na ci yàlla dafal jàmm ban yegg ca rek. yéen a ngi déggante kay bu fekkee dafay def open press yëkkati téléphone ne la doon man kat dama bëgg nga ñëw sama open press di nga dem. Elmo man du dem fu combat bi kii dama ne ah mu woo mooy bi ñu defee conférence presse pare combat boobu 4 jours rek des li may wax ne 4 jours rek des de te man combat suñu ci yéexoon suñu teeloon dugg naa guy gi day de dama yaa ngi des ma ne ko ah de comme combat bi nii la demee is naa ñaanu baatin doo fi sax comprendre biñ demee ma woo kooku noonu ma sa waa day day ñàkk man jour combat man dama xam sama bopp ko man dëgg ma loolu te man ku ma toroxal ma xeex ak yow barki Cheikh Bamba man kenn du toroxal man sama ding ak sama personnalité moom dama koy deyal moo kër guy ma xëy nelaw ba doyal añ sama kër ba suur sol sama rafet dem stade bi ma dikkee si porte bi gis gars yi di dugg ma gis ñu taxaw guy di dugg néew ma ko guy dugaaleel ma ma dama xam ne fii su ma fi taxawee mun na indi discrétion ñu naan 5 tonnes ak nii looy wut feek xam nga dama dem jaar ci isat ci kaw policier yi may ma ma jàll xam nañ ma fi Ama Baldé teg ci mikaayam fa laa wàcce ma ma dem fu mu wóowul du ma forcer sama àdduna fu xam ne dama fa xam ne dama fa nar a indi problème ma toog sama kër. yow mbëri nga sax te nit xam na la am nga droit wàcc euh, def def xam nañ ni yow doo nitu violence doo doo doo kii am nga euh, nit quoi dafa dafa am ñoo xam ne nañu la bëgg a toroxal comme nekk ay mbër comme nekk ay mbëri ndaw mën nañu si benn action dañ ci occasion pour toroxal te man du ma genre boobu man kuy ne xam naa dafa bëggoon ma ci moom man du ma laay def man noonu laa gëm man nag xama ma sama man maa ngi sant ñëpp nag xama di santaat yàlla judi si yonante bi di wax daal xama Sénégal yàlla na fa jàmm yàgg elmoo yaa ngi dégg di wax daal xama ku a la amul wala ku ne la munta seet waxu dëgg seet am na ñaan am na tamit comprendre mais daal làmb ji yàlla ñu yàlla yóbbu ci dimanche ak jàmm xam nga yàlla suñu borom dogal mu am prématuré bi ko dëgg tamit mu am jëree c'est total ah sa mot de la fin waaw xanaa di sant ñëpp rek di sant sama premier sponsor ku ci mel ni Guèye Pro Business xam Binta di ko sant bu baax mu ngi nekk en face Issa Ndiarème Guédiawaye vraiment ñoo ma jox 15 bi ma yor xam nga vraiment ay téléphones yu nekk qualité yu normal yoo xamante ni xam nga téléphone dëgg la téléphone dëgg dëgg dëgg dëgg comprendre waaw di leen sant di la sant yow it xam nga yow suma waaye nga sama xarit nga vraiment ndax mooy li ma loolu mais <laughs> loolu du ma ko mos a fàtte quoi moo rek am mbaam moom boo ko judloo da xam fi muy bañ waaw xam fi muy bañ quoi comprendre di la sant di sant ku ci mel ne père Moussa Fall xam nga borom maa ngi koy sant bu baax a baax xam nga père Moussa Fall bu Sathiès père borom marsam xam nga di ko sant bu baax borom diwli nekk ceeb bi maa bu baax a baax la sant di la jox sa wàccu waay xam nga di sant Cheikh Adama Sène jàmbaar Cheikh Abdou Karim Mbacké borom Makarim Akhla di ko sant bu baax di ko jox wàccu waay waaw am sant nga. waaw sant naa. sëñ Modou Touré la. waaw sëñ Modou Touré waaw la daal la mënul itam dama si ma demee Touba mu woo ko mu sonn ma dag après mu woo ma naa <laughs> a ñaan la xam xam naa ne gis naa ci moom xam-xam gis naa ci moom tamit xam nga ku ku ku kii quoi vraiment ku dal gis naa ci moom koo xam ne xam naa ne ko man li muy def la ku sérieux la quoi